jotaay bi yàgg na ci kilifa yi it toogaay bi metti na ci ñoom waaye ñuy rafetlu bu baax a baax rek waxtaanee ni mu doxee ci njëlbeen ge ba ci mujj gi day mel ne li ëpp ci li nga xam ne war naa mën a sotti fii ak màggal def nañ ko ci li ci ëpp li ci res nag mooy liggéey yi nga xam ne mënti nekk fii màggal xëy na ginnaaw màggal lay doon kon ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy borom liggéey bi. yi leen di jotlaaru cant ak ngërëm ma ànd kooku nag sama bokk yi tedd yi teew yëpp nga xam ne liggéey bi lépp ñoo ko ànd ñoo ànd jataay bi ànd liggéey bi yëpp di teg cant gi ak ngërëm bi ci loxol ministre intérieur Antoine Diome ak mboolem ñi mu seq liggéey bi yëpp bàyyiwuñ kenn xam naa ñaari wax ñaari am na tuuti yu ma ci fàttali rek sëñ Abdou Lahad Ka xaw ma ci jataay bi mu déet dafa mel ne daa waxoon ne day luyeel commité organisation juróom-ñaari citerne waaye kon lii nag bu mu jàppee da koy soppi kon loolu moom na ko jël jox leen ko ndax lii xalaat biñ ci amoon ci citerne yi mooy ci kër yu mag yi ñu yóbbu ko fa ak penc yi nga xam ne fere mbooloo mi gën a dajaloo ñu tasaare ko ci bu ko defee tëj ko bàyyi ko ba samedi ci ngoon ñu door koo tàmbalee ubbi waa sapeur pompier comme ci seen loxo la la ñu bàyyi ba gaaw ci ngoon ñu door ko ubbi ngir buñ ko ubbee xëy na kon diggante dimanche ak altine ji ba talaata du fi mën a jeex comme defoon na lu ëpp téeméer kab yoog nangam yoo xam ne daana mu daa tasaaroo ci dëkk bi yooyu dañ koy bàyyi muy may nii ñi ndox bu ko defee yii nag comme duy nañ ko ba noppi ñu def ko secours rek denc ko ba gaaw ci ngoon ñu door ko ubbi mu door man tasaaroo ci biir nit ñi kon loolu bu ko defee juróom-ñaari kab yi nga xam ne. waroon na ko jox waa comité organisation bi mu bàyyi leen ko ngir ñoom seen liggéey seen waañ yeeg ak ñi sàkk ci ñoom ndox ñu jox leen ko loolu bañ a soppi ko kon loolu bokk na ci li nga xam ne mooy li nga xam ne newoon naa dinaa ko ci woon li ci des nag lii moom jotaayu liggéey la du jotaayu cantante ak ngërëm ndax dañoo toll ci liggéey ba nekk ci cottite la kon sotteegut buñ demee nag incha allah ba àgg ca jeexital la. te sante ni ñu ko séntoo lépp mu demee noonu ñu door mën a jot li liñ ci mën a wax waaye si ci li ma sëriñ Ousmane leeral moom mi nga xam ne mooy coordinateur comité bi yëpp tey jonjoog liggéey bi di ci taxaw di dox sama liggéey ñoom ci liñ ma ci leeral ak liñ ma ci wax yëpp daal ñëpp dox nañ ci ay jéego jéego yu am solo yoo xam ne ñu ngi rafet njortu di dalom xel ci ne incha allah mën naa am yàlla def ci sutura doonte ne nag ndoxam Touba moom Cheikh taxaa Mountakha barki démb dañ ciy wax mu wax ma ci am solo mu ne moom de ndox mi moom at moo jàpp danga am yaakaar rek bu demee ba des ñetti fan rek manqué waat loolu nag ñëpp xam nañ di ko indi ndax bu fekkee ñi dëkk ci dëkk bi bu ndox mi doyoon ci ñoom itam lu ëpp ñaaram wala ñettam ñoo ñëw màggal si waat loolu kon boobaa li la ci mën a dimbale rek mooy comme réservoir yi moom yooyu bu demee bu gën tasaaroo ci dëkk bi nga xam ne màggal bu accès dañ koy ubbi. fekk fi li fi nekkoon loolee tax mu mën a régler waaye nag kon liggéey bi nga xam ne ren jii bi Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe ndigal waa OFOR ñoom ñi nga xam ne liggéey bi ci seen loxo ne mooy forage ak réseau bi ànd nañ ko ak dayre yi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi tàmbalee ci Touba ci kanam tàmbalee ci euh, waa Maa-u Rahmati ak yeneen kuréel yi ñu ko seqal yëpp. mel na ne def nañ ci ay jéego yoo xam ñëpp teg nañ seen bët kon a ñu ngi ñaan ci at mii daal yàlla suñ borom gën ñoo dimbale ba njàqare yeeg metti metti yëpp gën a woyof ñu àgg ca jàmm te lu lépp luñ ci séentu wala effort yi nga xam ne ñëpp dajal nañ seen kattan def ko ci ñu gisandoo ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Abdou Khadre ñu ngi lay nuyu yàgg sa mbokk yu tedd yu sell. yi nga àndal liggéey bi yëpp ñu am ci ay xarit ay sëriñ waaye ay mag suñu diggante yàgg lool ñu ñëwoon fii tey ànd ak le ministre auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la protection civile et de la sécurité de proximité biram Faye ànd ak gouverneur u Njaareem directeur général de l'administration territoriale directeur général de la Sénélec Pape Mademba Bitèye ak forces de défense et de sécurité yi général Ndoye colonel Diop DSP directeur de la sécurité publique le colonel Campbell bi représenté force armées waa OFOR ak mbooleem service su état yi nga xam ni seen loxo dafa war a tàbbi jëm ci liggéey bi suñu ñëw tey fii nag dafa bawoo ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall mu wax ñu ni liggéey bi ngeen tàmbale woon le 6 juin ca Ndam woyal ko le 22 juin ca Mbacké le 12 juillet ñu woyal ko toujours ca Diourbel ba ca le 8 août fee ca ministère de l'intérieur te lépp doon ci waajtaayu màggal gi ñu bokk liggéey bi ak comité d'organisation bi ci njiitalul Serigne Cheikh Bass Abdou Khadre mu ni ñu na ngeen dem xool fu liggéey bi tollu xool lu ca jara yokk ci taxawaay ngeen yokk ko laaj leen bokk ko ànd ak ñoom ngir màggal gi ñu dëgmal suñu borom defal ñu ci taw mu nekk ci màggal yi nga xam ni ci wàllu organisation ak euh, taw féex gu bëri dina ci dugg gu kawe suñu njort bi ñuy ñëw mu wax ñu ni nañu jël nuyoo yi gën a kawe nuyoo yi gën a sell ak nuyoo yi gën a tedd di ko ngir joxal ko ko waajuram xaritam soppeem sëriñam di sëriñ Cheikh Mountakha Bachir Mbacké diggam ak sëriñ Cheikh Mountakha moom président de la République son excellence Macky Sall ku ne xam na ko ku ne xam na diggante bi nu mu demee ci taxawu ci cofeel waaye ci jàppandal ci wàllu lépp loo xam ni soxal na Touba waaye tamit soxal na réew mi kon ñu ngi yëkkati ziara président de la république son excellence Macky Sall di ko teg ci sa loxo sëriñ bi di la ñaan nga jotlil ñu sëriñ Cheikh Mountakha nuyoo ziara yu président de la république son excellence Macky Sall waaye tamit mbooleem membre gouvernement bi te le premier ministre Amadou Ba nekk ci bopp bi bi ñu tàmbalee liggéey bi ànd nañ ceeg xel mu dal waaye ànd nañ ci tamit ak xol bu féex ndaxte ñi nekk ci service su état bi yëpp jotoon ndigal yu bàyyeekoo ci président de la république xamoon nañ ni duñ leen bàyyi mukk lu dul ni taxawaay ak yitte bi ci war yëpp dinañ ko ci def ndax loolu la leen président sant ñoom it ñu doon ñu ci sawar lool defee ko ak yéene ñu jox leen ndigal ngir ñu wéyal ko waaye ñu defe ko ak yéene ren nag màggal gi ñuy dëgmal nekk ci nawet daaw nekkoon na ci nawet waaye ren it dafa nekk ci nawet te ku wax màggal gu tombe ak nawet dinga xam ni li ci gën a indi euh, njaqare léeg-léeg mooy dem beeg dikk bi te li koy waral mooy yoon yu dagg xañ na walla ndox mu nangu ay kër walla ndox mu nangu ay yoon loolu nag naka jekk dafay ñëw par li tubaab di wax par cycle dafay am jamono boo xam ni dañuy toog ba ci yàgg bu ñu nattee weeru olof yi ni ñuy doxee dañuy gis day dem ba ci yàgg mu wëlbatikuwaat ba am lu mu dëppool ci benn jamono maa ngi fàttaliku bi ñu gënee nekk tuut tànk ñëw nañ màggal si fii ba tàyyi xuus dugg ci jumaa ji wala bu ñu nekkee ci biir oto yi wala ci kaw oto yi dañuy tawte ba yegg si loolu di dem di dem ba màggal gi génn nawet bi sans borom di dogal ci dogalam yi ñuy dox di dox di dox ba duggaat ci nawet bi mu doon loo xam ni dafa aajo woon waajtaay président xamoon ko def ay programme yu bëri fii di ci assainissement wu Touba léegi rek Pedre si di directeur u exploitation ONAS fàttali na bi président di ñëw premier programme bi mu tëral fii jële jëmale ko ci assainissement ak njeexital bi mu am ci biir dëkk bi ndax xañ na dëkk bi li wër jumaa ji wala yenn gox yi yu bëri daana am inondation ndox mi di nangu yenn bërëb yeeg yenn kër yi te loolu yàlla def na ci féex ba jeex na waaye liggéey la bu dul taxaw bu ñu demee ci première phase bi dañuy dem ci deuxième phase bi xañ na deuxième phase bi sax buñ ci jàllee dina dem ci troisième fas bi ndax ni Touba di màggee ku xamoon Touba ci jamono même su dee say at bëriwul di nga gis ni màggal gi daanaka li waroon jumaa ji la jëm 28 damay faral léeg-léeg di fàttali ni boo daan dem rek Gédé day day jigéen jumaa ji dem Gédé boo jëlul charrette day mel ni da ngay tukki boo daan jóge fii ci jumaa ji tamit di dem Madiana kooku moom tukki bu sore sore la doon doon ci yow nga xam ni xaj na léegi la euh, Touba màgg ba quartier boo ci jël day mel ni mooy xolu Touba keroog maa ngi koy fàttali ci benn waxtaan bu ma doon am ni ba ñuy sanc fële ca héliport dañu daan wax xanaa yéen da ngeen a bëgg nekk ci àll bi di màggal ñun ñoo sama benn xarit di wax ni ma nañ kaa leen ñu dem ca nit ña dëkk bi nag su màggee ba toll foofu état bi xam ko ànd ci ak euh, sëriñ bi ci wàllu accompagnement assainissement bi ala at yi ñu jëm dañuy gën a soxla taxawu ci fànn yëpp électricité bi dañ koy gën a soxla boo jëlee wàllu goudron bi génie civil dañ koy gën a soxla li sëriñ bi di faral di wax rek mbubb moo ko nattal ren bu déwénee mu cëkk ko kon màggug Touba mooy demee noonu maa ngi fàttali lu yàgg la loolu euh, ci euh, benn sommet bu amoon Istanbul su ma juumul sëñ Moustapha Saliou moo fa teewaloon euh, Touba teewal fa Sénégal fekk boobu ñuy xool yan modèle la ñu mën a jël ci développement wu dëkk ni mu gaawee ñu gis ni màggug Touba amul lenn luñ ko mën a méngaleel kon loolu état bi xam na ko di gàttandu li war a am yépp ci investissement ba moo tax dernier programme bi président tëral mu toll ci ñaar fukki milliards ak lu topp jëmale ko ci assainissement bi te loolu it xam naa ne bu ñu ci jógee dina am yeneen yoo xam ni da koy dal di war ndax euh, ni dëkk bi di màggee ak ni nit ñi di gàddaayee di gane si sëriñ bi fas yéene dëkk ak moom dafa am euh, loolu xam naa ci lay daanelee bala may ñëwaat tuuti ci euh, fi ñu toll ci liggéey bi benn greffier bu ma xamoon ñuy bokk di liggéey loolu yàgg na war na mat ay ñaar at ma gis ni dafa am menn at seen waa dëkk ñoom ñëpp toxu si ñëw Touba bi ñu ñëwee euh, indaale seen ay néeg indaale seen ay charrette indaale seen ay lal ñëw rek dëkk ci sancaan yi fekk seen maam mooy boroom dëkk bi ñu ñëw ci seen maam ni ko waaw ñun fii la suñu ay tool nekk fii la suñu ay jumtukaay nekk fii la ñu xamoon a liggéey te fii lañu amoon ay teen lan moo waral ñu toog ñun ñëpp rek ba beeku ñëw Touba dëkk fi maamam di ko xool ba càgg ni ko sagar day jege ab sën ginnaaw xolub murit boo ubbi boo ko seetee li ca nekk mooy guddi guddi bu ko sa borom moomee mu fanaan si Touba teel a jege si day yombal rek mbir mi nga xam ni loolu euh, même mag ñu baax ñi àndoon ak sëriñ bi yaakaar naa am na benn histoire bu ma ci xam euh, su ma juumul sëñ Maxtaar bintaloo la waaw Cheikh Maxtaar Binta Lo fële ca euh, dëkk bi nu mu tuddati waay ñoom rek ci ñoom re ñoom rek gi ñuy tuddee léegi ñoom rek bàyyi jili ñoom rek bàyyi taala noonu lañ ko tuddee léegi ñoom rek bàyyi taala noonu lañ tuddee dëkk bi waaye ñu ngi ciy nettali xisa bu yéeme bi sëñ maxtar Bintaloo làqoo nga xam ni ku nekk ci murit yi loola fas yéene def ba tax na xam nga ko président xam moo tax saa yu nekk muy sonne ci liggéey bi bi ñu ñëwee nag tey xayma ko gis nañ ni lépp lu ci service su état bi jëloon comme engagement toll nañ ci quatre vingt pour cent de réalisation loolu nag mën naa dal xel te li ci desit incha allahu rabbi gouverneur dina ko topp ba keroog ñu yegg ci màggal gi li war taxaw li waral taxawaayu état tamit bu ñu weesoo màggal gi ñu taxawee ko nañ ko war a taxawee incha allahu rabbi li ci yokku mooy gis nañ ONAS liggéey bi mu ci def waaye gis nañ ci wàllu ndox mi wax naa ko léegi forage yi nekk ci biir Touba toll ci fanweer ak juróom-ñaar OFOR leeral na léegi nii yëpp ñu ngi en service citernes yi dinañ ñëw waaye ren daf ci am benn addiya particulier boo xam ni président de la république son excellence Macky Sall moo ko indil boppam ngir mën a fexe ba ndox bañ a manqué moo tax mu jël ñaar fukki camion citerne bu ci nekk di def trente mille litres boo leen boolee bu ñu taxawee ci saa rek six cent mille litres la boo leen yóbboo ñu duy ñëwaat day dal di yokk limu li nga leen yóbbu ñu dem duy ñëwaat te lim ci jublu mooy fexe ba màggal gi nga xam ni ku ni màggal di ndox bisub cant la bisub bernde la waaye day aajowoo ndox ngir jëfandikoo loolu mooy li mu ni woon nañ ko ñëw indi jébbal ko Serigne Cheikh Bass mu jébbalal ko Serigne Cheikh Mountakha ngir ñu liggéey ci euh, màggal gi ba lépp luñ ci yéene. ñu am ko ci loolu daal mooy li ma amoon ci ay kàddu di sant service su état bi yëpp directeurs généraux yi fi teew force de défense et de sécurité yi fi tew di leen wax ni contexte bi ak jamono yi ñu nekk jamono yi bàyyi xel la ku nekk war nga bàyyi xel sa bopp waaye ku nekk tamit war nga bàyyi xel ñi ngay aar ndaxte ñi ñëw ñëpp ci màggal gi xañ na li leen tax a jóg doonul mbir mi doonul même mbir mi am na ñoo xam ne dañuy ñëw ngir màggal si santale si Serigne Touba boromam waaye am na ñoo xam ne xaj na leneen leen tax a jóg kon ak lu mu ci mënti doon rek ñoom xam nañ ko waajal nañ ko waaye ma leen di gën a soññiwaat di leen wax ni nañu gën a bàyyi xel kilifa yi waaye nañu gën a bàyyi xel askan wi te nañu gën a bàyyi xel moomeelu kilifa yi ak moomeeli askan wi ak moomeel yi nga xamante ni état bi moom moo ko fi indi. loolu moo doon kaddu yi may sant bu baax di gërëm asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuh waaw salaamaaleykum maa ngi delloo ziar bu baax a baax ah waaw loolu kon taw fexe ndax daanaka man daal maa ngi côté buntu Pikine bi donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li ngeen ci bagage ak moo ñu ngi dem incha allah bu soobee yàlla. alhamdulilah. central équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine ci seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement dina jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi. Centrale Équipement. Venez vous équiper à moindre coût. Nos prix défient toute concurrence. La qualité est notre credo. اليوم